parce que depuis Macky Sall bi mu ñëwee au pouvoir depuis 2012 li ñu naan il avait les yeux rivés vers les prochaines élections son objectif moo nekkoon leurrer les Sénégalais comment je vais faire je vais investir dans ce qui est visible boo investir dans le delta ci mbay mi du nekk lu visible mu ëpp impact de mais du visible boo investir dans l' assainissement pour éviter les inondations ay kanal ay ay tuyaux yooyu suul la ci suuf du visible xam nga ñoom luñ xam nga ñoom non du visible. Oui, le programme décennal de lutte contre les inondations c' est 700 milliards. 700 ban résultat nga ci gis. c' est 700 milliards est ce que tax na euh, inondations yi jeex. Euh, euh, daaw est ce que 700 milliards na fa mu war a ma ne. il y a deux ans. y a eu tout un débat on s' est même posé la question sur la destination de ces oui, fonds mais l'année dernière. il y a eu un léger mieux. Maïmouna euh, léger mieux bu amee ci inondation au Sénégal ba tey jii ma lay wax day dépendre ci la pluviométrie c'est-à-dire taw bi ni muy ñëwee parce que day dépendre ci intensité plus bi mais dama ne la 2012 septembre 2012 bi muy ñëw di lancé le plan décennal 2019 bi muy def campagne lan la waxoon tàggale naa sénégalais ak inondation parce que inondation yi jeex na. non yow yaa ne Macky Sall n'investit pas ils n'ont pas investi. non ils n'ont pas dans eh, eh, mais mais lu ah. visible lu la ñuy wër lu visible mooy nga ne j'ai un terre j'ai fait un loolu mooy lu visible lu ma lay wax loolu dama naan la en fait c'est l'esprit du vrai politique moom koo xam ne ni lenn moo ko soxal c'est pas développer le Sénégal mais c'est de se maintenir au pouvoir. mais terre bonul BRT bonul. waxuma waxuma la bon na de. mais am na lu ko gën a priorité. Euh, les les autocons là bonul. bonul <laughs> mais mais loolu c'est un bon indicateur. au contraire mais dama la Sénégal li koy développé du loolu xam nga li koy développé dafa am ñett yëf yoo xam ne je le répète souvent mënoo aspirer au développement te régler woo ces problèmes le premier c'est l'alimentation d'une population su fekkee ne tu peux pas nourrir ta population. loolu cëslaay bi mooy lan mbéy nga développé mbéy su fekkee ni tu pas soigner tes enfants malades bu ma ne tes enfants c'est-à-dire le peuple ñi feebar mënoo leen a faj mënoo aspirer à l'émergence bu fekkee ni tu pas éduquer tes enfants tu es très loin de l'émergence te ñett yooyu benn bu ma ci jël agriculture wax nañ ci ba pare boo jëlee santé mais nit ñi dañuy wax mais Sénégal excuse-moi ku fi feebar te amoo xaalis. tu risques de mourir Sénégal bu ñuy coow est-ce que xam nga ne Sénégal boo jëloon les indicateurs nous avons Sénégal un médecin pour cinquante mille habitants est-ce que xam nga ne la commune de Fissel c'est près de cinquante mille âmes amul un médecin amul benn infirmier d'état chef de poste la am. à Fissel ak deux autres ci yeneen euh, poste de santé yi pour cinquante mille habitants en moyenne au Sénégal on a un médecin pour cinquante mille habitants alors que là xam nga norme bi lan la un sur dix mille c'est-à-dire cinq fois moins pourtant on a dem médecins hein? on a formé beaucoup de médecins au Sénégal yaa y en a qui tirent le diable par la queue et c'est dommage nit ne la def naa médecine ba pare bon maa ngi def ay garde fii mais amaguma lu stable c'est dommage c'est pareil pour les infirmiers on a un infirmier pour onze mille habitants alors que la norme c'est un sur trois mille on a un hôpital pour cinquante soixante-dix mille habitants te et quel hôpital nguuru Sénégal li muy dépenser ci santé pour chaque Sénégalais yow par exemple xam nga ñaata la lay réserver par année pour sa santé l'équivalent de quatorze mille dollars comparaison n'est pas raison boo demee ci un pays comme les États-Unis c'est dix mille dollars comparaison n'est pas raison ah mais comparer vingt quatre ak dix mille rek quatorze mille lan la la mën a fajal yow en moyenne ah c'est une moyenne que je donne lan la la mën a faj ci sa santé et on nous dit que yooyu ay secteur prioritaire la donc dama la bëgg wax ne la moi je suis contre les infrastructures ah j'aime bien des infrastructures parce que bëgg naa fi may jaar mu nekk ay yoon yu baax mais ce n'est pas le les grands axes oui ñu ngi continuer dynamique wu Ablaye Wade sur les infrastructures mais demal Medina boo jaaree ci yoonu Medina yi waa Medina ñu ngi may dégg chaque fois dama fay jaar mais dama yéemu on est en plein cœur de Dakar am na yoon yoo xam ne waroon nañ ko dépasser Sénégal 1960 sunu PIB mu ëppoon bu Corée du Sud tey sa télévision yu ci bëri yëpp Corée la jóge hmm. ay Samsung ay LG boo jëlee euh, les voitures Hyundai Kia frigo yi lépp Corée lay jóge mais dépassé nañu parce que on n'a pas travaillé et malheureusement tous les gouvernements qui se sont succédés pas au même rythme bien sûr mais ont failli et ça c'est une réalité il faut qu'on recadre et qu'on repriorise on a un potentiel man je crois profondément que ce pays pas dama ko gëm parce que on a les ressources Sénégal on a des de sept cent cinquante millions de tonnes de fer ndox mi yaana le fleuve Sénégal et chaque année on te dit que c'est entre dix mille vingt mille vingt mille vingt milliards de mètres cubes qui se jettent dans l'océan Atlantique alors que loolu moo nañ ko defee yóbbul ko béykat yi ñuy béy douze mois sur douze. dégagé nga seeni priorité santé éducation. agriculture. du loolu rek ça va au delà loolu mooy cëslaayu ñun liñ yaakaar bu bëggee développer am réew loolu loo war a maîtriser la loolu la ñuy wax les basic needs en anglais les besoins primaires de base loolu nit ki bu lekkee bu xiifee rek war a mën a lekk rek boo réglé problème boobu réglé nga lu bëri. mais pour terminer euh, alors yéen a ngi nekk di former seen coalition. Euh, Diomaye ou BDF 2024 vous ouvrez euh, vous tendez les bras à tout le monde oui pour la coalition déjà à tout le monde on n'a rien dit ñu jógee euh, sax ci waa nguur gi tu sais man personnellement li ma mm. gëm laa lay wax tout n'est pa mauvais de l'autre côté chez eux mais yéen da ngeen leen gën a nekk ma ne da ngeen non arrêtez da ngeen leen gën a nekk patriote fii sénégalais bu fi nekk di servir ce pays là tu es un patriote le patriotisme ce n'est pas pour vous non non non déggal nga naan tout n'est pas mauvais non tout n'est pas mauvais de l'autre côté la réalité non comme tout ma ne tout n'est pas mauvais bon tout n'est pas mauvais tout bon je suis d'accord avec toi voilà la bonne graine il y a l'ivraie lépp ah. fa am ma ne est-ce que vous prenez tout non non attends moom laa la wax l'essentiel est que Pastef li ñu mas di wax mooy du ñu wàcc suñu trajectoire waaye bépp sénégalais bu retrouvé wu ci ñun li ñuy def nga ñëw ne dañoo bëgg a jàppale pour élire Bassirou Diomaye Faye. vous êtes preneur. qu'il soit du système ou pas. mais le système du ay nit. Hmm. ça va au-delà. d'accord c'est toute une oligarchie qui s'accapare des ressources pour ses, ses, ses, ses propres intérêts mais c'est pas des personnes. c' est que des des un système c' un ensemble d' éléments en ah, interaction oui c' est un ensemble d' éléments en interaction mais dama la bëgg a wax ne c' est pas parce que ñu bëri dañuy naan fonctionnaire nga yow sax tu es du système c'est méconnaître le système donc yéen daal pour faru pare ngeen pour tàllal loxo ñëpp képp ku retrouvé wu <laughs> ah. ci li ñuy def te ñu yaakaar ne mën nañu ànd ak yow pourquoi pas merci mais mais promettre wuñ kenn dara itam. ah, ah non le partage du gâteau loolu. on n'est pas encore dans ça